salaamaaleykum mbokk internet ñuy suivre à travers BP Actu te dañoo génn ci beneen facette ñoo ci rab seet si Nit Doff Kill la ñu bàyyi leen ak moom mu nuyoo nit ñu ngi leen nuyu. waaw salaam frérot maa lay fay maa lay nuyu du nuyu waa BP Actu di nuyu internet yi ñuy seetaan maa ngi nuyu du ziar ñëpp di leen dalal di am. événement boo xamante ne da nga koy amal def na léegi sept ou huit ans boo xamante ne ni chaque année da nga koy def lu mu doon mu mucc ayib loo xamante ne nit ñëpp dañ ci bàyyi xel. muy am le quinze bi stade Iba Mar lu ñu mën a xaar ci bés boobu. waaw mooy show of the year année bi mooy huitième édition. donc euh, ñu koy def yàlla di def sutura muy nekk lu nice mu dem ba nekk rendez-vous bi ñëpp di xaar bi ñëpp bëgg a fekkee artistes yi yëpp di ñëw ñuy invité génération yëpp ci benn night ñëpp ñëw bëggee xam nga loolu noonu yàlla cërale nañu ko ci mouvement yi bi nga xamante si ni ñun ñoo koy organiser chaque année donc euh, ñi ngi koy préparer ñu ngi woo ñëpp aussi ñu ñëw comme d'habitude ni ñu koy defee dans la paix ñëpp dal jàmm ñëpp bëggee ñëpp ñibbiwaat si jàmm comme ni muy amee quoi ni ñu koy préparé mooy comme ni ñuy préparé yeneen rek suñu maximum lañ ciy def suñu ay fonds lañ ciy def dañuy def le tout pour taaral game bi ñu nekk bu ñu sañoon day passé fii yëpp di dem mais looy xëcc xëcc arrêté bàyyiwoo bu yàggee dina ñëw quoi te gis nañ que ni aussi année bu nekk mi ngi gën a jëm kanam donc ñi ci gërëm gars yi si jàpp mu ñëmal la yéen ñëw def interview jàpp si promo bi ñoo leen si big bu baax le monde du hip hop DJ yi animateurs yi melomaan yi ñëpp ñooy si jàpp quoi parce que bu doon man kase la amaana du agsi fii quoi comprendre donc lu ñëpp jàppandoo nag day mujjee oyof quoi donc maa ngi si big up gars yëpp huitième édition tey bu koy tudd sama tur la ñuy tudd mais yàlla xam na que ni bu doon man kase la du agsi fii quoi donc maa ngi big up ñëpp ñëpp ñëpp quoi. mais mu nekk loo xamante ne chaque année ampleur bi day gën a rëy ñuy gis ay bus yu jógee ci région yi fu ne ñu fay jógee complice bi nga wékki am bu nit def am ak sous région bi tamit. waaw mooy liggéey bi ak gëm sa bopp bi aussi xam nga donc loolu day fay quoi. sénégalais bi bëgg na loolu quoi bëgg na nit ku gëm boppam bëgg na nit ku dëggu parfois di nga ci dund yenn night yoo xam ne day xaw a tar mais finalité bi dangay fayeeku mooy li ngay fayeeku mooy cëru doomu aadama yi ngay fayeeku te loolu moo gën alal moo gën lépp loo xalaat ci àdduna mooy nga am cëru doomu aadama yi te man loolu maa ngi ci sant suñu borom tu am naa cëru doomu aadama yi jaral naa nit yi ñu daw ay kilomètres jël ay bus jóge fu nekk fu nekk lu ne ñu daj ko pour ñëw taaral sama bis liggéeyuma lu tax ma am loolu jagle suñu borom la ak jaayante xëy na bu ndaw boo xam ne jot naa ko jaayante ak nit yi mais li ma nit yi di fay je sais même pas naa ko mais en tout cas loolu cër la boo xam ne maa ngi koy sant suñu borom xam nga si ay nit yu jël ay plus de deux cent kilomètres jël ay bus fii jóge Diourbel ñi jóge Louga ndax sa jëmm ji wala boog ndax hip en général te yow aussi nga nekk ci ginnaaw loolu yëpp jar na sant suñu borom quoi donc loolu yëpp jagle suñu borom la quoi. sa euh, relation ak jeune artistes yi nga lim léegi rappeurs yi. est-ce que euh, neex na comme ni mu waroon neexee. pour lu ci ëpp ah sincèrement su ma la fenul quatre-vingt-quinze voire plus de la nouvelle génération samay gaañ lañ ay gaal yoo xamante si dañ may invité seen ay concert ma leen invité sama concert ñuy sentir li ma def fu ñu ma romb jox ma respect man aussi c'est la même chose comprendre nga après nag àdduna doo jubóog ñëpp doo àndoog ñëpp doo déggoog ñëpp comprendre nga. matale moom je pense ku ko bëgg a def rek boo matul da nga da nga xaw a naafeq un peu quoi ci am ab benn pàcc boo xam ni xëy na da ngeen di réeroo wala déggoo wala nag yu demee noonu mais en tout vingt quinze voire plus pour cent de de la nouvelle ak ñoom ay rapport yu extraordinaire la ñu am quoi. mu am xale boo xamante ne nii mi ngi woon ci ñun mais instant bi dañuy sentir absence am muy Ngaaka Blindé est-ce que yaa ngi dem ci moom wala yaa ngi jot ay nouvelles ñu ngi am nouvelle tout le temps maa ngi jël nouvelle am demoon naa seeti ko incha allah war nañ ko juger le 13. donc euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla mu defal ko jàmm ak sutura ba lii génn mu gaaw génn parce que aussi c'est un c'est un gars très bien bu def benn erreur boo xamante si nii lim ko fayee chair na trop xalaatuñu woon ne dina agsi fii pour ñun deux trois jours bu gars yi comprendre que ni kii vidéo kese la doon def dafa juum ci autorisation bi xamul woon ni mu war a demee je pense que parce foo foog nañ ko ni gars dañ dawal compréhension. teel ko bàyyi mu def liggéeyam dellu ci famille am mais bon réew mi ñu nekk parfois day xaw a compliqué quoi quoi qu'il en soit yàlla la bay Faal la ku gëm yàlla la ku nangu nattu la man moo ko seetee moom moo ma doon dalal quoi moom moo ma doon dëfal comprendre nga donc du coup loolu noonu day wane njàmbaaram euh, loolu mu doon bind ci ay texam mi ngi ci moom quoi donc euh, ñu ngi koy masawu masawu famille am di ñaan le 13 mu génn fekk su ñu ñu continuer def job bi quoi. le 13 ban la le 13 bii nii décembre mooy jour jugement donc képp ku mën a ñëw tribunal na ñëw dooleel ko mu gis que ni mouvement bi wala jeunesse bi yëpp ñu ngi si ginnaawam quoi.